waaw Baye Fallou site yaakaaruma woon sax ni site bu mel nii dina am quoi parce que man mais xeex bi moom maa ngi ko doon xaar. xeex bi maa ngi ko doon xaar bu baax a baax. mais xaw ma ne woon jël bu mel nii tey combat bi dina demee noonu. vraiment tey Modou Modou Lo xalaatoo non non non franchement. daanu cuune la daanu. non non billaay maanaam du daanu cuune sax mais boo ñaani mu bare moo baaxul tey. nan la bëree waaw ni non li mu bëree mu baaxul mooy benn nga dajeeg Modou xarañ loolu. waaw Modou Lo ku ne xam na ni combat am. boo ko dégloo da lay déglu. comprendre nga. Mhm. Modou Lo boo bëggee ci moom dara bu arbitre génne seen diggante. Mhm. agressé ko nga jiwloo ak moom. waaw jiwloo bi nag da doon dëgg ci yow. mais bu mu doon ay bu mu doon ay mhm. ay cokkaas génn déedéet. lu Modou Lo lool nga mën a bëri moom jàpp ko. mais Modou boo ko bayee benn benn. benn benn mën na ci bëreeg yow fi ba suba té bu jé ko daan Modou Lo gaay yi wax day bàyyi du bàyyi no ban bàyyi Modou Lo sa way lambam di gëna dogo ibéku uh-huh. mu wara fayé ko ay centaine de millions di bàyyi làmb loolu daa mën a ne kan, kan nga gis né mo wara sax non mais yow ba am ak Balla Gaye numéro 2 nii mën taxaw waaye Balla lan léegi information bi ngay lan. ma am ak Balla numéro 2 taxaw Balla 2 Lo fois. fois loolu du dara mais yow man lii musuma ko xalaat naa ne xel sax. non dama ne. waaw Balla Gaye Modou xarañ Lo mën nañoo bëriwaat léegi. Modou du bàyyi bëri. jëlee information boobu non fenn sax dama ko xalaat rek dama xam ni. wéy hmm. lamb yow tamit lamb dafa doy waar. ah lamb lamb gars yi dañuy wax Modou Lo Tapha Tine yow nga génne ak Balla non dama ne Modou Lo Tapha Tine la xam nga li ma la wax ah. Modou Lo su ko neexee mën na may sans sax benn booy bu ko neexee comprendre nga parce que lamb les grands contre petit la mais dama ne la ah. à tout moment ah. bala Gaye ak Modou Lo mën naa taxaw li man maa la ko wax kenn xalaatu ko cey sama booy ginnaaw raay maa ngi lay jaajëf